alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah هنيئا لإبراهيم لا هلال هلال بدا للناذرين جماله هلال ربي فيه جاء محمد وتم لنا البشرى وأما نواله nga xam ne ñoo ñu suivre ci internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar beneen yoon tey nag ñu ngi fi waa Axbaabu Axbaabu Barhama nekk ay jeunes yoo xam ne ñu ngi ci réseaux sociaux yi di liggéeyal baay liggéey bu am solo nekk ci TikTok yi nekk ci Facebook yi lépp rek di xitmaal Maulana Cheikh Ibrahim tey nag euh, ñi ñëw fii ci Medinatu Kawlaxi Medina Baye teewa teew ci gàmm gu mag gi nga xam ne mooy gàmmu international waaye ñoom nag bàyyiwuñ seen loxo benn yoon ndaxte dañoo ñëw ci liggéey bu am solo ñëw di xitmaal Mawlana Cheikh Ibrahim comme ni ko Serigne Aline Cissé doon defee daan liggéeyal baay comme ni ko Maam Ibra Alpha doon euh, Maam Ibra Fall doon defee ci liggéeyal ki nga xam ne moom mooy Mawlana Cheikh Ibrahim ci tooli koos yi waaye ñoom nag ñu boole seen doole seen kattan ak seen mën-mën lépp di ci xitmaal Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi nii teew ak le président ak mbooleem membre yi nga xam ne ñoo ci nekk am na sax ñoo xam ne ute nañ waaye xam naa ne xat-xat rek moo leen tëye dañ di bàyyi nag ñu nuyu ak mbokki internet yi bu ko defee ñu séq ak ñoom yenn laaj ak yenn tontu kon nag président ñu bàyyi la nga nuyoo ak mbokk taalibe yi asalaamaaleykum euh, wa rahmatullah maa ngi nuyu mbokk taalibe yëpp mbokk taalibe Maulana Cheikh al Islam Maam Baye Niass di am euh, kontaan tey mbégte tey teewaat fii nii Kaolack Medina Baye ànd ak sama euh, waa groupe waa Ahbabul Barham nga xamante ni macha allah euh, ñoo ngi ci réseaux sociaux yi tamit di def euh, liggéey bu am solo daanaka sax ñun ñëpp fa la ñu xamante te bëggante rek te Maolana Cheikh Islam tax moo tax tamit tey ñu dajewaat fii defaat rencontre tamit fas yéene waxtaan ak euh, askan wi am ñoo xamante ni dëgg la ñoo ngi seetaan tamit ñu wax leen ñun tamit suñu. projet groupe bi lan la demee ak euh, lan lañ si jot def daal ak loo xamante ni loolu jërëjëf président ah, bëggoon nañoo xam léegi lu sos groupe bi waaw groupe bi dañoo gis ne ñu bëri ñoo ci yëngu ci TikTok bi am ñoo ngi leen di commencé xam ak yooyu noonu ñuy xidmaal bàyyi di ko jëmmal ci lép lu ñu ndax ay ndaw lañu suñu neexoon tamit ñeneen ñoo TikTok yi bëri na ñu su nekk ñoo ngi def ay façon TikTok ku su nekk di kii te ñeneen ñi tamit teewul ñoom dajaloo nañu tamit def seeni association booloo ci li mooy bàyyi moo ñu ñor bàyyi la ñuy safoo bàyyi la ñuy tiitoroo pourquoi pas ñun ñu taxawal suñu benn euh, association ba pare njëlbeen bi après door a commencé tàmbalee liggéeyal Maulana Cheikh al Islam comme bàyyi nu mu ko doon defee rek nekk diine bi nekk tamit ci société bi. macha allah projet yi bëri na te rëy na waaye nag ñu ci gën a euh, ràññee ci jamono ji mooy ci gàmmu gi euh, ci ren ji gis nañ ngeen def liggéey bu am solo. macha allah waaw ndax suñu jigéen ñi ñoom tamit jigéenu faydu bi. Mhm. macha allah ñoom ñoo ngi fi woon tamit di def créer euh, seeni waañ di di togg di servir ay ndekki d'ailleurs sax fii lañ ko doon defee chaque mhm. suba ñu ñëw togg def ay ndekki tamit euh, dajaloo tamit def liggéey bu liggéey bu am solo daal am na tamit yeneen projet yoo xamante ni ñoo ngi ñëw incha allah ñun dinañu toog suñu biir gën a waxtaan xool nan lañ koy tëralee mais dañuy def nànk-nànk rek ndax ba ñu tàmbalee tamit wax dëgg neex yàlla yàggul mhm. mais gis nañu pas-pas beeg bëgg-bëgg beeg gars ko si nekk détermination bu nga am soo gisee sa morom day mel ni sa bopp ngay gis rek macha allah mu doon loo xamante ni lu lu rafet la daal kon daal jamono ji mën nañoo wax ne projet yi rëy na te bëri na rëy na te bëri na waaye euh, ku bëgg a bokk ci seen euh, association bi nu muy def waaw association bi da ngay da ngay contacter rek euh, numéro yi. Uh-huh. waa waa TikTok yi ci message bi tamit ci groupe bi ñu intégré la. ci groupe bi tamit numéro yi yaakaar na internet yaa ngi lay déglu. waaw numéro yi. waaw am 77. 590 91 30. bu la neexee nga jël bu Cheikh Tidiane. Cheikh Tidiane 206 waaw 206 22 73 22 73 ak 224 224. 07 07. 72 72. ak ñoom Fatima ak ñoom Fatima Rasoul. daal te association bi dafa tas ci Sénégal. ba sax est du dem ba ci monde bi yëpp ndaxte Baye dafa international. waaw macha allah loolu tamit ndax soo gisee sax ci association am na ñoo xamante ni. Mhm. nekkuñu fii biir Sénégal. Mhm. nekkuñu biir Sénégal ñoo extérieur te yàlla xam na ni ba léegi gisante wuñu mhm. dañuy déggante di tooñante yooyu yëpp tamit te liggéey bi lépp loo xamante ni woote nañ si rek ñoom tamit dañu si gis a a a a macha allah kon nag ñi ngi am yaakaar bu baax seen doole ñëw ci loxo bi nga xam ne moom mooy loxo Maulana Cheikh Ibrahim ndaxte presse bi soxla na leen mm. waaye tamit xalifa bi ci boppam soxla na leen ndaxte yéen a ngi siiwal lu bëri bëri loo xam ne ah ñu bëri dégguñ ko woon kon nag ñi ngi ñaan yàlla yokkute di ñaan yàlla xéewal ak taysiir seen mbootaay bi man moom bis niki tey bokk na adoré te maa ngi bokk nañ waa Seedo Actu tamit bokk nañ yàlla yàlla defal ñu tawfiix ak a bi jaay seen di wujud salaamaaleykum wa alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah